mbokki waa Sénégal mbokki waa diaspora mbir xewatina fan la xewee ci kër na mu Moule Sow muy ab jaaro boo xam ni sëriñ bi moo ko génneel àdduna génneel ko monde entier muy ab bague magique boo xam ni képp ku ko takk da ngay ubbeeku dangay ngay am wërsëg da ngay am xaalis bépp musiba bu mu woon nar a ñëw sa kaw jaaro bi dalay aar bépp jafe-jafe boo nekk jaaro bi da koy fanq bépp liggéey boo nette nekk ci ay jafejafe jaaro bi da lay dimbale liggéey boobu daal di saafarawu képp koo xam ni am nga jafejafe jëm ci wàllum wér-gi-yaram ak jafejafe jafe bu mën a doon tànk jaaro bi mi ngi nekk ci sa loxo jaaro bi da lay aar ci lu baree baree baree bare kon suñu mbokk yi jaaro bi fan nga ko mën a amee kër xalif général di Alaaji Ceerno Moule Sow jaaro bi nag pour nga am ko sur commande la boo ko commandé ñu def ci sa def ci sa turu jaaro bi affaire de jinne la ah suñu mbokk yi xam ngeen ni nag pouvoir ku ko bëgg am ci kaw suuf jinne yi ñoo yor pouvoir te ku wax xalif général tudd jaaro bi ñu ne affaire de jinne la mbokk yi fan la ci kër Alaaji mu Moule Sow mbokk yi ku bëgg jaaro bi nan ngay def ba am ko da ngay oote ci numéro bii di 78 580 46 46 580 46 46 ci xër xalif général di alaaji mu Moule Sow Chers talibés, chers fans de Cheikh Moulay Sow, voici une très bonne nouvelle. De quoi s'agit-il? Il, Il s'agit d'une bague magique, une bague magique qui est amenée par le khalife général des djinns, Cheikh qui ne cesse d'impressionner les Sénégalais. Donc une bague magique qui vous permettra d'avoir de l'argent. Dès que vous avez des problèmes d'argent, vous avez des problèmes de boulot, si vous avez euh, d'affaire. Si vous voulez l'avoir, vous pouvez voulez l'avoir, vous pouvez nous appeler sur le 78 580 46 46 78 580 46 46 venez vite le est limité